dossier bi da koy xaw a perturbé wante ñu ngi sant yàlla wante dama am ñetti doom su ma caat ñetti ñëpp judduwuñu fi caat bi xew-xew bi bu muy am ñeenti at la amoon ñeenti at xamu ci dara ndeysaan muy dem école xaritam yi di ko tooñ ñu koy tooñ di ko tooñ bés ma ñëw fekk ko ci kër gi ma ne ko lan ngay def fii mu ne ma noonu dew ma école ma ne ku tax demoo école mu ne non man dew ma école parce may dem école su ma xayti dañ may ma ne ko dañ lay tooñ ma dañ may ne man sa papa yow assassin la reykatu nit xool suma doom ma ne ko sa xarit yi ñoo lay wax lu mel noonu mu waaw ma ne ko mais kenn la wala mu ne ma ñoom ñëpp dañ may tooñ su may dem sax suñu sax sonné récréation man damay toog ci classe bi du ma génn parce su ma génnee ñoom ñëpp dañ may topp di ma toog di ma ne sa papa reykatu nit la sa papa reykatu nit la ma jàkkaarloo ak suma doom xool ko ci bët ma ne ko yow sa xarit yi ñoom ñëpp xam nañ sa papa mu ne ñoom ñëpp xam nañ suma papa ma ne ko yow est-ce que xam nga sa est-ce que xam nga seen papa ñoom mu xool ma xippi ay bëtam mu ne ma non man xaw ma seen papa ma ne ko doom jógal te nga dem jàngi école te nga sant yàlla sa bàyyi mooy Barthélémy Dias dama jàngi ma ne ko ma ne ko bés boo màggee di nga gën a am kontante ci sa bàyyi lu mu liggéey Sénégal ma ne ko parce que bés di nga xam lu jotoon xew ci euh, bés boobu ci mairie bi ma wan ko vidéo mu tiit parce que musul gis ay fetel mu tiit ma ne ko bés bi sa pàpp su defuloon lii yow tey doo am bàyyi ma ne ko kon nag dama jàngi école ma ne ko ñu lay toon di doon ne sa pàpp ñoom ñëpp xam nañ sa pàpp comme yow xamoo seen pàpp rek na nga jàpp ni seen pàpp yi dëkki wu ñu dara Sénégal ngeen jégal ma ci kàddu yi kon nag mbokk yi dama ne dama ne dama ne man mercredi le 10 dama fas yéene dem tribunal yóbbu suma doom yi pour ñu mën a ubbi seen bët ñu xam kan mooy seen baay dinañ xam est-ce que seen baay assassin la wala est-ce que seen baay kilifa la buy xeexal réewam buy xeexal démocratie biir réewam moo tax may ñaawlu bu baax a baax baax communiqué wu procureur général euh, waa sa sant Diaby parce que communiqué boobu lu mu wax dëppawul ak dëkk man maa gën a yàkkamti ñu àtte ma wante lu may ñaawlu mooy caaxaan yi ñuy dugg ci dossier bi dama koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla nak lu ñu mën a bëgg a téye benn dossier dix bañ ko àtte dix ans loolu fu ñu ko teg su ñu waxee suba mooy élection wala su ñu waxee diw dafa bëgg day wut candidat ñu ne waa dañ lay woo tribunal mais loolu fu ñu ko teg fu ñu ko teg. balaa meeg dee ñu ne waaw il faut il faut respecter la justice mais dañuy respecter une justice qui se respecte loolu mooy dëgg kon nag ñun mercredi may leen ñu rek may leen ñu rek ñu daaneel may leen ñu dama ne mercredi incha allah mercredi incha allah lu ñuy sàkku ci ndaw ñi mooy na ngeen envahir le tribunal de Dakar ñoo wane seen taxawaay ak seen naxar. dama ne bi fu ngeen mënti nekk biir Dakar ci gox goxaat yi na ngeen wone seen taxawaay ñun résistance la ñuy woote ñoom nag magistrat yi dama ne may la ñu rek ñu daaneel ci conférence de bi s'il vous plaît dama ne ñu ci bëri ci ñoom magistrat yi ñoom dañ jàpp ni que kenn ñoom kenn xamu leen kenn leen ràññee parce que kenn kenn kenn kenn xameewu seen kanam mën nañ def leen neex mën nañ wax leen neex dara la ci fekk fa la ñu nag parce que dama ne lu ëpp tuuru dama ne résistance bu ñuy wootee mercredi ci mbedd bi résistance boobu moom laa fas yéene am ci taxawaay ci biir tribunal bi te ñu ma xam xam nañ est-ce que damay wax walla est-ce que damay waxantu ñépp lay respecté wante dama ne ce cirque-là, il va prendre fin mercredi au tribunal de Dakar. Inch'Allah. lu leen neex nag def leen lu leen neex def leen su ngeen mënee jàpp jàpp leen su ngeen mënee téy téy leen su ngeen mënee rendi rendi leen wante dama ne si vous pensez que vous êtes en sécurité dans vos voitures fumées euh, teintées vous vous trompez si vous pensez que vous êtes en sécurité dans vos dama su ngeen jàpp ñu ne que da ngeen da ngeen am kaaraange parce que da ngeen nekk ci tribunal nekk seen bureau yor ay garde du corps yor ay gendarme danga du leen ci fekk da ngeen ñu nax seen su ngeen fekk su ngeen jàpp ni da ngeen nekk ci ay oto ñu leen dawlal ay waa GIGN ak ay waa BIP di leen di escorter danga du ci fekk da ngeen ñu nax seen bopp yi su ngeen jàpp ni da ngeen nekk ci ay kër ñu leen di garder danga du leen ci fekk dama ne da ngeen di nax seen bopp yi tey damam ne bu leen taxaw fii ji ne dañ leen menacé kenn menacé wu leen dañ leen di wax luy xew di ngeen jàppe ko noonu waaw dossier bi di ngeen ñu lettre baa ngeen firiñu